Paul Kagame, comme je l'aime bien que Paul Kagame, c'est la même chose. La pauvre, regardez ce qu'il a et même Kagame président boobu moo sant Kagame. léegi euh, ñu bàyyi Salwa Ibrahima Fall ah, mu daal di ñu indil actualité people yi. <laughs> boo pare ngeen yéen ñaar <laughs> voilà. donc euh, comme à l'accoutumée dañuy présenter les actualités people les plus marquantes euh, dañ koy nag daal di tàmbale ak euh, benn mécanicien bi nga xamante ni euh, mu ngi wuyoo ci turu Mouhamadou Mboup moom nag il se faisait passer pour un pour un policier voilà donc en fait un mécanicien mais d'habitude day réparer li nga xamante ni moo di auto policier yi donc moom dafa dem ba gis boppam ci ci corps de métier boobule. Mm-hmm. Euh, di nag euh, wax population ñenn ci ñi nga xamante ni da leen day faral di dajeeg ñoom di leen wax ni que dafay régler ay cas ku am problème mën nga ñëw ci moom parce que c'est un policier c'est un policier euh, par la suite nag. le benn couple bu ñuy woowee Ndey Ndey Ndigal Mbay ak Awa Cissé mm-hmm. am benn problème donc dañ dévalider seen boutique ñu ñëw nag def recours ko lui vu que moom waxoon na leen ni c'est un policier par la suite ñu jox ko benn somb toll ci deux cent mille francs CFA mu ne leen dina leen nag euh, defal enquête ngir xam kan moo dévaliser boutique boobu Euh, jël xaalis bi encaissé ko ba pare daal di dem ba ndar ne fa lay defee li nga xamante ni moo di ay recherche am <laughs> après quelque temps mu daal di ñëwaat jël euh, benn waay ne leen que kii moo ko moo ko dévalisé woon mais na seen xel dal façon yoon dina def liggéeyam et que nañ ko jàpp. donc groupe boobu kontaan ci moom ba jox ko benn somme bu toll ci cinq cent vingt neuf mille francs CFA mm-hmm. donc euh, mu mel ni nekk na lu day waax loo xamante ni balaa moo feeñ sax def na tuuti temps parce que par la suite lu gisaat beneen euh, waaye bu tudd Benjamin joxoon ko otoom ngir mu réparé ko parce que moom nee na mécanicien la en même temps policier loolu lay revendiqué euh, mu daal di jël nag oto Benjamin boobu daw ak moom donc boobaak léegi def na un an par la suite nag police nationale di def enquête euh, ba nekkee ni si mu mel ni nag ci démb lañ koy nag daal di jàpp li nga xamante ne moo di ca fond wu aan euh, jamono ji nag yoon daal na koy teg loxo jàpp ko pour un an ferme ñu ngi koy toppee nag li nga xamante ne moo di usurpation de fonction ak euh, escroquerie mais it détention illégale d'armes blanches te un an un an ferme c'est-à-dire tamit euh, benn instant justice bi man du ma leen comprendre mais man lu ma bëggoon lu ma lu ma bëggoon xam euh, ci biir information yi mooy moom bu mu daan def ñaawteef yooyu. Mhm. ndax dafa daan sol tenue. wala mhm. ba ba tax nit ñi di oser di yëkkati xaalis somme yi toll noonu di ko di ko ko jox pour mu leen di régler seen ay cas. Mhm. wala lan la tenue bi mu doon sol déjà. ñi kenn xamul fan la ko jëlee arme bi nga xamante ni aussi moom la doon yor. également. c'est grave mhm. loolu moom wax dëgg yàlla c'est c'est c'est c'est très grave euh, rawatina mu daal di euh, euh, di di yor arme mhm. mu nekk leneen loo xamante ne man crime crime laa ko mën a tuddee te mhm. genre yi nii dafa bëri trop ci dëkk bi chaque année dañuy dégg ñoo xamante ne dañuy def di di usurpation de fonction te nag li ma si gën a jaaxal mooy chaque fois genre yi nii ci ci homme de tenue yi surtout policiers yi ci lay si ñoom lay lay laale xaw ma nag pourquoi choix boobu mais on a ferme bi aussi loolu tamit war nañ ca wax. Euh, man wax moom mooy euh, man Sénégal yi dañu bëgg lu yomb aussi. xam nga man euh, plainte su ma koy def damay dem gendarmerie wala ma dem police ma bind ah plainte déposé ko. Ah moo xam nag après plainte bi ba ban inspecteur lañ ko jox wala ban agent lañ ko jox moom ah. suivre ko. mais lii day wane ni rek dëkk bi mooy loolu. saa à dire da ngay am maanaam bras c'est-à-dire ni ñu wax ne da am ku la taxawu. nga ni wala nga ni diw sama cousin la wala sama sama sama sama doom la wala sama jabar la mi ngi police donc moom laay confier dossier wala moom laay wax pour mu menacer ma Masamba wala ma Demba donc pour man loolu moo indi lii. donc tey jii pour man amuñu droit ji sax benn policier ñëw ni ko non toppal toppal ma kii pour mu fay ma sama xaalis da nga war a plainte dafa war a dugg. mu am fu mu jaar parce que mm-hmm. affaire justice la. Mm-hmm. affaire këyit lay doon donc pour man lii euh, ñoom njëkk blâmer. Mm-hmm. moom mais en général sénégalais la Sénégal la donc loolu tam dafay am. ba si boo defee plainte yow di nga jéem a euh, euh, ki nga xam police di doon jéem a nangu plainte bi jël ko pour en pour après moom mu mu jéem a menacer euh, ki nga xam ni moom ngay plainte et même bu fekkee ni. li muy menacé sax affaire civile la wala li nga xam war jarul menace sax dina ko jéef di la jërëm xoxotal parce que daf ko daf ko xam parce que parce que parce que parce que en tout cas nañu bàyyi loolu nañu jaaral lépp yoon yoon moom ñëpp la fu war a nekkal mhm. mais su fekkee dañu dem ba il faut nga xam kenn foofu. da nga da ba ba il faut que tey ji nga am tour wala nga am xaalis pour que sa dossier yi gaaw wala wala ñu jël ko en charge. Mm-hmm. wala en main je mm-hmm. pense que ne lii rek lay indi te nit lii moom c'est lu ñu mën a éviter la. Mm-hmm. et que yaa ngi wax tamit euh, euh, li nga xam moom mooy mooy peine bi un an bon mais euh, am na ñi nga xam ne xëy na lu gën a yées lii la la ñu la ñu jël. la ñu sàcc wala la ñu ki détourné. mais si kaso bi la ñu dee. effectivement mu nekk loo xamante ni mat naa bàyyi xel donc euh, ñu daal di euh, dugg fële nga xamante ni moo di Mouride TV Mouride TV tamit fësal lu doy waar am nag ci ci ci nege ni démb bu mu mel ni nag dafa am benn tentative euh, d'enterrement bu ba benn borom ñaari tur yi fële nga xamante ni moo di ca Touba mu mel ni nag mu ngi wuyoo ci turu Pape Sow. Mhm. Euh, au fait euh, président daayira Moukhaddamatoul Khidma bi nekk ci Touba nga xamante ni ñoom ils sont chargés de tout ce qui touche euh, mosquée bi wala fële nga xamante ni si moo di baax ya mm. cimetière boobule ñoom nag ils ont été prévenus que am na benn góor jigéen buy wuyoo ci turu Pape Sow ñu koy woowee Alex bi nga xamante ni faatu na et que boo moytuwul dinañ ko andi foofu ca baax ya par la suite nag président Euh, boobu lee daal di dem nag prévenir ñi nga xamante ni ñoo ñoo nekk foofule ca Ndindi ak euh, commandant bi nekkee foofule. Mm-hmm. ñu def ay enquête toog nag di xaar euh, ku kuy wuyoo ci tur boobu pour daal di koy andi. mu mel ni nag def na deux jours après ci la ñu gis nag corps boobule ba mu ñëwee ñu daal di enquête ñi andi boobule corps. ñu xamal ko ni kii Pape Sow la tudd mu ne leen nax amul beneen tur buñ koy woowee ci lañ ci lañ ko xam ne nii que surnom bi di Alex lañ koy wax donc euh, ñoom ci boppam ñoo xamal famille wam que kii mënuñu ko denc fii parce qu'il se trouve que borom ñaari tur yi la donc même famille wam ils étaient choqués bien que nee nañu ñoom euh, du ñuy dëkk ak moom de voyager tout le temps mais xamee wuñ ko loolu hmm. bien que parfois ay ci at bi tuuti lañ koy gis mu delluwaat affaire yooyu donc euh, ñu daal di koy jël jëlaat corps bi delloowaat ko fi nga xamante ni moo di moo di Dakar Dakar euh, la gaañoo mais waa mais waa mbuur la. Mm. mu nekk lu doy waa loo xamante ni jamono ji waa Touba ñu ngi koy ñaawlu parce que xam nañ ni euh, lu ni mel du sax Touba mais l'islam en général mooy mooy mooy mooy bañ yooyu lay jëf. raison raison de plus nag ñu war a xoolaat dundin bi xoolaat mhm. nekkin bi parce que ña lii da dafa ñaaw nga génn mhm. àdduna ñuy jaga-jagatee sa néew di yóbbu fii di yóbbu fële te ku ne mhm. xam ne nit bu génnee àdduna dañ ko war a daal di gaawantu gaawantu denc ko mais lii nii man sincèrement bi ma gisee image yi daf ma daf ma métti parce que euh, quoi qu'on puisse dire aussi néew la néew bu ñuy jël di ko jagat-jagate yóbbu fii indi fële mm-hmm. je pense que nit ñi war nañ xoolaat seen nekkin bu baax mm-hmm. de ce fait bu ñu génnee àdduna ñu daal di mën a am li nga xamante mooy euh, mooy euh, way bu rafet parce que aussi fa même c'est vrai que ñoom nee xamuñu man j'ai suivi la vidéo mm-hmm. ñoom nee nañ xamuñu woon ne loolu la mais boo boo xoolee bu baax nga jàngat terme yi yow di nga am benn esprit critique tuuti di nga ñaaw njortu parce que yow nga dëkk ay nit bu leen laa naan ça fait deux gisuma ko kii naan gisuma ko nee ngeen a dëkk aussi loolu ça reste ñi nga xamante ni euh, trouvé nañ ko. Mhm. parce que tamit ñu vraiment ay liggéeykat lañu. Mhm. tamit yoonu Serigne Touba nii rek la mën a demee bettuñu. Mhm. xamoon nañ ni euh, fa warul tëdd du fa tëdd. foofu Serigne Touba ko moom ñi ngi santaat di gërëm ñi nga xamante ni ñoo trouvé li nga xamante ni mooy borom ñaari tur ba denc ñu ko suñu barab bu tedd boobu. bu ko defee ñu daal di dugg Leral TV Leral TV it dikkaat ci kaawu train express régional bi nga xamante ni it jamono ji ñu ci bëri ñu ngi ñaawlu anam bi nga xamante ni loolu la mel parce que nee nañu à peine quelques mois ba ñu ko inauguré léegi donte sax euh, euh, nekkagul en marche ñu ngi ko inauguré woon en janvier 2019 mais dañoo seetlu ni raay yi nga xamante ni moo nekk ci ci train boobu jamono ji ça laisse à désirer parce que dafa am ay fissures yu bëri yoo xamante ni dafa nekk ci ci bi booy dox sax boo ci bàyyee xel bu baax a baax di ko gis donc euh, ñu gis ni lu ni mel mën naa indi yeneen jiya parce que donte sax commencé gu ñu ci ay travaux léegi mais dafa mel ni euh, qualité bi nga xamante ni moom la ñu waroon a def ci raay yi defuñu ko euh, mu mel ni nag sénégalais yi ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax. man je parle en connaissance de cause. Mm-hmm. li ñu li ñu li ñu wax noonu. dëgg bu weex peng la gis nga au niveau de Rufisque man léegi su ma su su ma su ma wàccee du ma jaar fi nga xamante ni fa la fa la fa la travaux yi am parce que man fissure yi man maa ko gis sama sama sama xel ñemewul man may may jaar foofu na parce que da ngay dox nga gis nga gis ay fissure ci loo mhm. xamante ni ay travaux en cours la loo mhm. xam ne pareegul mhm. c'est-à-dire et puis ak liggéey bu yàgg bi ci boppam fissure sax dina am parce que liggéey bi mooy yàgg yàgg boo xamante ne inauguré nañ ko janvier 2019 ba léegi janvier 2020 ñëwaat parewul kenn xamul liggéey lu mu doon mu dem ba fissuré wu da ngay dox gis ay poussière di di di di génn ci ci ci loolu bi nu mu tudd sax ci man espèce de tunnel sax laa laa ko mën a mhm. tuddee man moom wax dëgg yàlla appel bi may lancé mooy nit ñi que ça soit au niveau de Rufisque wala feneen foo xamante ni travaux terre jaar na fa mhm. nañu éviter di fa jaar parce que wóorul nañ ko éviter surtout la travaux yi pare nit ñi war faa jaar nag ak terre bi fuñ jëm loo xamante ni nee nañ dépensé nañ ci plus de douze milliards de francs CFA liggéey man liggéeyu yebaate dëgg mooy liggéeyu terre liggéey yebaate dëgg la. c'est c'est dommage quoi parce que véritablement on est ñu ñàkk chance quoi. Union Saint TER bi au mois de janvier. ah bi ñu koy bi ñu koy inauguré noonu dañuy waxoon phase d' bi euh, six mois la donc il fallait compter un petit peu fin juin et puis début juillet. Mmh. xool léegi nii ñu ngi nekk au mois d' octobre fin octobre début novembre at bi dina dee dañ ko def en fait nga nga inauguré benn affaire mu ëpp at te dina dem at te kenn te affaire bi commencé wul daw. mais mais xam nga lii gis nga lii nii ah li may bon je sais pas ah, na Sénégal ñu ngi ciy bàyyi xel quoi mais mmh. vraiment man que je liggéey ñu quoi te ce rythme là moom la ñuy demee depuis 40 ans 50 ans ans ci ginnaaw depuis ñu amee indépendance ba tey xoolal même rythme bi la demee quoi dans dans ans ci yii la nekk quoi ay affaire ay xëccu pétrole affaire pétrole bi lii la xaalis bi lii la ñu jox ñii machin et déstabilisation ak yéen nga euh, non c'est c'est dommage yow li liggéey commencé gul pareegul sax nga ciy gis ay fissure ay kenn xamul euh, pont bi nekk ci euh, loolu tunnel bi nekk ci suufu kii bi Euh, euh, euh, comment dire bi corniche bi bi boobu ñu ngi si doon wax aussi dafa doon am ay ndox yuy jaar ci suuf et cetera mm. lu tax day lan moo tax ñun lu ñu defar du baax lan moo tax ñun rek te te pourtant bu ñu jàng école dañuy am diplôme yi ah dañuy am diplôme yi c'est des ingénieurs et cetera ce sont des gens qui sont qui sont très très bons qui leur diplôme mais loolu li koy expliqué Aliou Sow yomb na liggéeyuñu pour liggéey mais dañuy liggéey pour bilan ay liggéey yàkkamti la ñuy def pour bu élection amee bu ñu mën a présenter Sénégalais ne maa fi def lii ak marché sous traitance aussi marché parce que les gens s'enrichissent mais nit ñi dañuy ñi ngi ñi fi ñiy liggéey ci yooyu yëpp y a il va y avoir beaucoup de gens de millionnaires et de milliardaires ci yoo xam ne ci terre bi lañ ko gagné ah et pourtant ça ne va pas marcher il y a un problème ah, man damay voilà ah, ah, si lu mel nii ah déjà dañ ko defar pareegul ñu am ay fichures bu paree woon sax te amul fissure après entretien bi. day resté à désirer tey pont émergence bi. boo xoolee côté bi féete Grand Médine dañ fay jaayee jën. Mhm. Euh, boo jàdd pour dem aéroport donc da nga dañ doon permettre oto yi nga xam ne dañu jënd jën ñu ñu ñu gaare à droite. Mhm. mais non taximaan yi ñu ngi fa. ñii réparé euh, yenn mécaniciens yi ñu ngi fa et puis du ñu wax dara. léegi yow pour nga jàdd pour dem aéroport. Euh, à peine da ngay da ngay faufilé wu wala ngay xaar pour pompe donc on dit rien. Mhm. ñi nga xam da leen déggee piron euh, stade euh, stade bi également si parking bi. Mhm. ñu ngi si côté VDN prolongé bi côté Diamalaye foofu donc affaire bi gën a gën a jaxasoo pour man aussi tamit war nañu trouver solution ñee ñuy déger piir ñu wutal leen wutal leen fu ñu leen case parce que aussi ñoom il faut ñu dund ñu ngi si biir koñ yi ñu ngi si artères yi mm-hmm. parce que il faut il faut ñu réparer maxu liggéey boobu maxu liggéey boobu dafa problème liggéey boobu dafa am ku koy def dafa am ñu ko war a def dafa am ñoo xam ne leen dénk leen dénk réew mi pour ñu def liggéey boobu mais ils ne font pas ils ne font pas c'est tout et ñu désensabler également euh, Salma ñu jàll ci beneen voilà dañuy jàll ci chaude bagarre bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fa li nga xamante ni moo di ca Mbàkke donc mu mel ni ay wujju peccorga la lañu la ñu donc euh, ñoom ñaar mu mel ni nag justice euh, grande cru waaw grande instance bi nga xamante ni moo nekk foofu ca Mbàkke daal di leen ni nag mujjee jugé euh, ki nga xamante ni moo di Fatou Ngom ak Fatou seen ñoom ñaar ñi de dañoo mujjee songo ba kenn ki daal di nag xëcc lèvre inférieure mooy tuñ bi ci kaw moroomam mu nekk lu doy waar loo xamante ni ku nekk nemmeeku na ko foofu nga xamante ne moo di ca Mbàkke ginnaaw si nag tribunal des grandes instances bi nekkee foofu daal di nag jugé daan ki nga xamante ni moo di Fatou ngoom ci lu tolloog un an dont six mois ferme ak euh, koppax gu toll ci sept cent cinquante mille francs CFA mu mel ni wax na ko versé mais famille wu ki nga xamante ne ñoo di Fatou ngoom ñoom daa xam ne nag dinañu interjeté li nga xamante ni moo di ab xam nga mës naa ko fay wax mu naa su ma ne ko léegi Sénégal wu wujjee entre entre co épouse amatul. mais mm. entre. Euh, wujju peccor ga léegi loolu loolu mooy wujj. mais pourquoi foofu wujjee war fa am ci ñoo xamante ne bokkoo leen jëkkër bokkoo leen ku ngeen di fanaanoo et tout en tout cas lu lu doy waar la ñu ngi defante lu ñaaw ay lèvres yu ñuy màttal mm. yooyu noonu wax dëgg yàlla ñu koy ñaawlu bu baax affaire vampire yooyu noonu. ñàkk ko soxor rek la <laughs> ñàkk ko soxor ñoom ku ci amul bàjjenu vampire it am nga tonton vampire. Mm. loolu ko benn jëkkër ah, waaw parce que xam nga lan la bu fekkee da ngaa jógee sa gérer ma gérer sama gérer bokkuñu waaw bokkuñu li ñuy ñuy fanaanoo daal comme bokkuñu ko moom yaa ngeeg sa yëf maa ngeeg sama yëf tëyal sa yëf ba maag sama yëf <laughs> waaye boo iñaanee fa yàllaaw ndax xale yi dañoo ferox boo mënee ni menace moom doo ma accepté ndax da sangu di sañse sa borom bu ko amulee nag nga defa ni sa jëkkër moo ko teg mm. et pourtant loolu bokkuñu mm. ay wujju peccoor go dama xamul man vraiment on est où quoi mm. que lan moo tax en tant que ay wujju peccoor go munoo dégérante ñi daf ma jaaxal mais bokkuma ak yow jëkkër lan nga nan nga may iñaanee man bokkuma ak yow jëkkër suñu jëkkër yi ñoo bokk ndey ak baay mm. ay waaye nañ ànd te yàlla tax adduna jeex na torop je pense que bon je pense que gars yi soxor quoi. yow nga am say gémmiñ quoi nga jël gis suñu jàmm xam ko quoi. tu comme mala. comme loolu loolu nan nga ko mën a xool nit. war na la mën a def loolu. waaw bu ko loolu loolu ce sont les animaux yi ay pitbull yeeg yooyu. loolu loolu xaj mooy def loolu. ak loo mënti def waruma ñëw taxaw naan dama lay def yenn yi. loolu loolu xam nga il faut non yi ñoo baaxul dëkk bi dem parce que xol yi dafa dafa dafa en fait dafa dañu soxor xol yi lañ war a def waaw il faut il faut il faut ñu il faut ñu am na soo Aliou Sow mais waaw daan nañ ko daani métti rek ni sax pare ñuy ndax keppee actualité people yi mais nag Aliou Sow may remercier maire Diatou bi ma doon wax la dernière fois sur le mhm. plateau je pense que mhm. dinaa la ko présenter Maris la nekk ñu ngi kontaan ci moom bu baax a baax borom beñe yu neex yi dinaa fi mos a andi beñe sax ngeen ngeen ngeen ngeen dégusté d'accord te bu la bu la bu la bu la maire Diatou maire Diatou xamee ma sama ngir yàlla su la maire Diatou joxee beñe indi ko dëgg yàlla fa yàlla di jaar ndax moom di am nooy def.